sëriñ Abdou Khadir ak dogoom rekk ak dëggoom ci laay wax su na si yoneen ba soppeem la teg ndëggoom te tawxiid sareexaam ak xaqiixaam lu nekk a mat mu woor lu ñu sib xëddam di yiw jub ga doon dogoom jëfi sunna ab sonn jël sunna sànni fee ñi ñuy yéem di lii lañ yem sunum jiili sax ci moom bis sunu jàmbaar jaa ngi ñëw kooku mooy kan ilimaani teeg bu ëllëgee Cheikh Abdoul Khadir l'islam jëmu ko Sénégal yëbu ko ñi mu jur yar na leen xettali na bindeef yëpp ku mas tiit baa nga jàq baa sa bët xong ba jàkkaarloog ak sëñ Abdou Khadir mu weex tàll kooku la ñuy wooteel muy la treize ci la koy fàttaliku di ko ñaanal ñaanal ko boole ca doomam ju baax ja sëñ Modou Mbakkeem Cheikh Abdoul Khadir ak njaboot gi yëpp moo tax sëñ Moustapha toog fii dend ak njabootu mbusoobe yëpp moo tax nu toog tey war a jàkkaarloo yéen. noo ngi leen di nuyu. fii ci jataay bi nga xam ne fi daa toog te toog fi bis ni tey jii di yeesalal lañ daa yeesal di fàttali lañ daa fàttali ci ndigalul Serigne Cheikh Mbacké ibnu Cheikh Abdoul Khadir mu jox ndigal rakkam xaritam soppeem wettalam Serigne Mouhamadou Moustapha mu toog fii ànd ak njaboot gi war teew nañ daa teewe jottali lañ daa jottali ci ndigalul Serigne Mouhamadul Mountakha di ko defee ci barab bii nga xam ne nag fi la Cheikh Abdoul Khadir doon liggéeyee bi mu liggéeyee liggéey bi ba noppi it nekk fii fi kanam way juróom yi Cheikhul Khadim mu nëru lool ak la Cheikh la euh, Mouhamad Abdullahi Alawi waxoon ci Cheikhul Khadim mahallu qabdi ruuxihi mazaaru tuqda bihi alxawjaa izizaaru fii la ko sama borom moomee nekk fii sa ci sëñ Tuubaa di diggante boo xam ne bii boo am yaakaar la ku fi ñëw boo dikkee loo fi ñaan ci sa positif la waaye sans borom am na ko mën na ko dana def ci barke Serigne Touba. asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. yéen mbokki jullit yi yéen mbokki taalibe yi ci ndigalul sëñ Muntaxa ak ci kilifteefam ndax biñ ci laataa def dara sëñ Cheikh dem na ci ba tàgg ko ba jox ko ci ndigal kon ci jataay bi moom rek lañ fi nekkal. ci baatam ak ci kilifteefam ak ci njiitul sëriñ Cheikh Mbakke ci lay bëgg a jotalee ci kàddug sëriñ Cheikh woote bisub Cheikh Abdoul Khadir Mbakke bii ñu di ko wootee ci pàkk bu laab bii di pàkk boo xam ne néewaa na foofi doxe te sëriñ Abdoul Khadir julliwu fa fu ci ne rek ak julli na fa yor yor wala mu jàng fa alxuraan kon pàkk bu barkeel la mm-hmm. jege it jumaa ji nga xam ne mooy suñ lépp ñu ngi leen di nuyu ci pàkk bii di leen xamal ne daa saa bu mu xaram ngelaw li uppee dana def suñu xel ñun ñëpp dana jàpp ñu fàttaliku Cheikh Abdoul Khadir Mbacke ku ne am loo yëg sa bopp loo xam ne yaa ngi fàttaliku kilifa diini gii nga xam ne jàmbaari lislaam la woon joo xam ne roy yàlla defoon na ko mu nekkoon mu nekkoon sa santion boo xam ne boo bëggee gis jullit boo xam ne la doon wërteefam defe na ko nam ware sa xel dana dañu Cheikh Abdoul Khadir doonoon nag koo xam ne ku daa dimbale néew doole yi la te di leen wan kanam gu leer te di leen yërëm te ku ci wéradi mu mu mu seet seet seet seeti la loolu bokkoon na ci ay jikkoom ni ko sëñ Abdou Lahad daa séeréel rek danaa wax na sëñ Abdou Khadre liñ ko fi indee ca loola rek la ne te musu koo jóg bëri bëri wut sas waag dara amul xëy di gont amul xëy di wàcc loolu nag ci la nekk ba yàlla may ko li li mu ko may kon sëñ Abdul Xaadir Mbàkke moomu nga xam ne ab jataayam boo jàngutoon xam-xam sax boo fi yàggee danga xam ci sunna dara da xam ci hadis dara wala ndax waaraate yi ab jaa jataayam ci waaraate yooyu rek la daa dund sëñ Abdul Xaadir Mbàkke moomu nga xam ne ab xolam dafa fees dell ci bëgg yonent bi alayhi salaatu wasalaam ak bëgg sëriñ bi moom moomu nag lañ leen di woo ci bisam di fay àdduna yëpp bàyyiwuñ kenn mboolem ku yor ki eh, kilif ku nekk kilif ak aada di di di ko yégal président de la république di ko yëgal it première ministre di ci woo mbooleem koo xam ne si mbokkum jullit nga ñu ngi la ciy woo di ci wooy masaaixu taraxi suufi yi ne sëñ Sam sa dana ci ñëw ci kanam yëpp di ci woo wëllëri yi di ci woo taalibi yi di ci woo mbooleem koo xam ne amoon nga ak moom ak cofeel rek foo mën a ne di soññ ñëpp ci njàngum kaamil mi <laughs> di leen xamal ne bis bi nag alxames lay dajeel noonu ñu ko waxe mm-hmm. di dajeek fukki fan ak ñett ci weeru septembre wii di ñëw ñu ngi ciy woo ñëpp bàyyi wuñ kenn cérémonie officielle bi nag bu ñu màggalee ba ci suba sa lay doon ci ajjuma ji ñu ngi ciy woo ñëpp di woo mboolem ku di bokki tali bi te di leen wax lañ leen daa wax rek kuy ñëw na nga àndaali say bagaan rek mm-hmm. ndax inna li rabbikum foofu lañ ko sukkandiku inna li rabbikum fi ayaami daxrikum la nafahaat ala fa taharradu laha kon ku indi ay bagage bagaan te ànd kook positif rek loo ci taatan yaakaar nañ ne lim liggéeyal yàlla ak cër bi mu am ci sëñ Tuubaa mën na laa may loola mu ngi yëkkati ay kàddu yoo xam ne mooy kàdduy sëriñ Siidi mu Cheikh Abdoul Qadir ci ndigalam la ñuy kàddu yi moom it lépp loo xam ne mi ngi koy yëkkati mi ngi koy yëkkati ci ndigalul ay kilifaam muy Cheikh Mouhamadou Moustapha mi toog ak sëriñ Cheikh um Abdoul Qadir ca ñoom it seeni kàddu yëpp ñu ngi koy yëkkati ci turu Cheikh Mouhamadou Mountakha ñu leen di ñaanal ñoom yàgg fi lool te wér kàddu yi nag kàddu yi fàttali la bisub Cheikh Abdoul Khadir ku ne xam na ne bisub Cheikh Abdoul Khadir bu ñëwee danañ ko waajal waajal ci ay jotaay yoo xam ne dañ koy amal ci kër njabooti Cheikh Abdoul Khadir yi ren nag am na ñetti kër yoo xam ne tànn nañ ko ci kër yu mag yooyu nga xam ne ñoo askanoo ci Serigne Abdoul Khadir radiyallahu anhu Serigne tuuba moom sëñ yoon yónni ci juróomi fan ci weer wi fa la amal jotaay bu njëkk bi ci juróom benneelu fan bi muy suba ci ëllëg sa ci kër sëriñ Abdul Ahad moom sëriñ Abdul Qadir moom it dinañ fa amal jotaay waxtaan juróom ñeenti fan yi ci kër sëriñ Mbàkke jenn ca njenne waaye ku ne xam na ne buñ demee ba bañ ne ginnaaw suba la màggal gi muy talaata dana am conférence bu mag boo xam ne ñëpp ñu ngi koy bàyyi xel conférence boobu it ñu ngi koy fàttali ginnaaw tàkkusaan muy juróomi waxtu lay am fi mu daan amee rek nga xam ne një sëti Cheikh Abdoul Qadir yi ñoom ñoo koy ñoo koy ñoo koy taxawal ànd kook sëti borom tubaay yëpp ànd kook taalibe yëpp bisu màggal gi it ku ne xam ne li ci li ciy am rek mooy jaamu yàlla rek jaamu yàlla ndax fàttaliku Cheikh Abdoul Qadir ku koy fàttali ci yàlla nga koy fàttalikoo kon danañ fi jàng alquran danañ fi jokk bokk danañ ci ziyaare mooy li ci daan am ci bis bi loolu mooy am ci bis bi mooy ziyaare yi ci am ak njàngum alquran mi nga xam ne moo ci am ku ne xam ne ni guddi gi ci buntu bi buntu kër gi am na danañ fi jàng ci guddi gi euh, cérémonie bi it wax nañ ko léegi muy am bu bu ñëw màggalee ba ci suba ga kon loolu mooy li nga xam dañ ko doon yëkkati ci turu sëriñ Siidi mi nga xam ne mooy jëwriñ ji di ko jotal mbokk yëpp ak taalibe yëpp ak jullit yëpp di ñaan yàlla mu fekkeloonu ko ci jàmm dañu tal ko te lépp loo xam ne nit fas na ko ci suñu boroom defal ko ko ci. ñu ngi leen di nuyu ñu ngi nuyu mbooloo mépp di leen yégal bis bi nga xamante ne moom la sëti Sëñ Abdou Khadre yi baaxoo yëkkati di ko ànd ak turandoo Sëñ Abdou Khadre yi ak bokk yi di ko waajale màggal gi bu ne nee gannaaw suba la màggal. di ko defee fii ci buntu kër Sëñ Abdou Khadre muy tombeek ren la 11 septembre de talaata bu nee gannaaw suba la màggal gi foofu nag am na tuuti lu fi soppeeku muy waxtu wi. mooy waxtu kon léegi day mel na bu ñu salmali takkusaan ci lañ fas yéene def waxtaan wi waxtaan woowu nag eh, thème bi biñ ci tànn ren mooy ahamiyatul ilmi wa asruhu fil fardi wal mujtama solos xam-xam ak i jeexitam ci nit ñi ak mbooloo mi sëñ Mbàkke Abdourahman it mooy def waxtaan wi ñu ngi ciy woo nag mboolem ñun bokkal Serigne Touba ñëpp di tàmbalee ci Cheikh Mahamadou Moustapha ba ci Cheikh Mahamadou Mourtala ñëpp ñu ngi leen di woo tàmbalee ci kër soxna Fadja ba ci soxna Maymuna ñëpp ñu ngi leen di woo ak mboolem ñun bokkal si Mor am Sali ak mboolem ñun bokkal euh, maam Balla ak mboolem ñun bokkal maam Maharam ñëpp bokk yëpp ñu ñu ngi leen ci woo te ak ñoom ndax ñoom ñoo ñoom ñoo ci bokk yem ndax seen Abdou moom ñëpp ko bokk euh, ñu ngi ci woo it ñi nga xamante ni ñoo bokk bokk ak ñoom suñ busoo ñu ngi leen di woo ak mboolem waa kër maam Saabou sa ñëpp bàyyiwuñ ci kenn ah di soññ ci biir réew mi ñëpp ak ñene ne bitim réew di soññ mag ñi di soññ ndaw ñi ah di bëgg nag nan daa doxe rek ñu doxe ko ndax ci gu sëriñ bi lan daa liggéeyee mu wax ne dafa bëgg nañ fi jiitu te mujj fi gannaaw loola itam mu wax ne dafa bëgg itam addee yi nga xam ne ñi dañ ko daa joxe ñi ci biir réew mi nañ ko yónnee mu egg egsi bara ñi egg ci bis bi ña ne bitim réew itam ku fi nekkut na nga ko yónnee sa ndaw la ne ca kër ga waaw loolu la wax daal nañ ko fàttali te fas yéene am pasteef bu baax ci liggéey bi taxaw ci te kenn ku ci nekk looy bëgg nga fas ko ci te xam ne Serigne Abdou Khadir mën na lépp. duru suñu jëwriñ Serigne Sidi Mbacke moom Cheikh Abdou Khadir mi nga xam ne moom la Serigne bi tekki suñ kanam muy suñu jëwriñ e, mu leen di fàttali rek li nga xam ne amuñ lu muy moom mu bisu Cheikh Abdou Khadir bi nga xam ne mooy suñ bis. li ñu ci war nag mooy dalal mboolem taalibe boo xam ne jóge na ci biti ñëw ngir màggal gi bu ñëwee ñun ñoo ko war a yaatal dalal ko toppatoo ko ba du tuuma ci dara. kon ñu ngi sant ñëpp di wooteel bi di leen xamal ne mbale bi nga xam ne baaxoo nañ ko def bu màggal gi jublu si incha allah ajjuma la set lañ koy def bu ñu xëyee ci ëllëg sa di di la huit di samedi ci la ñuy tàmbali bâche yi bu boobaa nag bu ñu tàmbalee bâche yi ba ba màggal gi wéy ku ñëw da nga fi da ñu fekk ku dem fi nga ñuy bàyyi ñu ndax ñoo war a teeru gan yi teral leen. ñi nga xamante ne ñoo tudd ay jiili nga xam ne ñoom la yàlla dogal liggéey bi soso woon ci seen loxo mu ne mi ngi leen di soññ bu baax te xam na ne sax jërul leen a soññ dafa fekk ne jaasi lu mu ñaw ñaw boo jubee ci xare yeesal ko rek waaye xam na ne pëseef bu ngeen amoon ba taxoon ngeen xalaat xalaat bu rafet ba sosoon liggéey bii ba tey ku nekk bëgg cee jàpp pëseef boobu ba tey ji leen ko yokk waaye wàññiwu leen ko di leen xamal ne nag da ngeen cee am ay liggéey am solo liggéey yu am solo yooyu mooy organisation bu am doole bi nga xamante ne moo ci ëpp solo te ñu war koo def ci base bu mag bi nga xamante ne moo nekk ci bitti te Serigne Khadim Gueye war cee fanaan ba tey sëriñ bi da ko yeesalaat teg ko ci seen loxo kon nee na na ci bàyyi xel gan ñi nga xamante ne ñoo aju ci daayira turandoo yi te di jóge ci bitim réew wala ci région yi nga xamante ne ñoo tabaxoo biir réew mi ñi ngi leen war a dalal ci kër Sëriñ Murtala te yéen a am seen toppatoo muy soññ nag turandoo yi nga xamante ne dañoo bàyyikoo ci kilifa yu tedd yi nga xamante ne wëlërante ak Cheikh Abdou Khadir moo taxoon ñu tudd leen Cheikh Abdou Khadir ne leen yaakaar na leen ci bés bi yaakaar na leen ci liggéey bi yaakaar nañ ci seen loxo ndax daayira turandoo yi lu ci waaye def ci liggéey bii rek ñoom ngay jàppale incha allah fas nañ yéene ajuma jiinu jëm euh, ñu tàmbali réunion yi te gaaw ba ci topp sax fas nañ yéene incha allah saa su 10 jotee rek ba ba jant bi so képp ku ñëw kër seen bu Khadir da nga fekk secrétariat bi nga def say watu matukaay. liggéeyal Cheikh Abdou Khadir faraasu la niroo naag yàq waaye ngóob moo ko weddi ku liggéeyal Cheikh Abdou Khadir rek da añ. bàyyiwuñu kenn nag bàyyiwuñu fenn presse bi ak communication bi sëriñ yu Mbacké Cheikh Modou Abdou Khadir mi ko bàyyam bii dénk mu ànd ko ak nun bisu Cheikh Abdou Khadir daal ku ci feeñ ci lu baax dootoo nëbb alxames la ba séddee àjjuma di cérémonie bi di fukki fan ak ñett ci weeru septembre wii nu nekk di ay ngëneel yu Serigne Touba waxoon maam Thierno Birahim Ndaamal Daaru wax ko ko mu del ko ca bu bis bu jotee ku ñëw am ca loola sëñ sëñ Moussa nag yéene leen ko moo tax mu ni ngeen indi bagaan yi bu kenn indi ndab lu ndaw bis baa ngoog la treize la bu kenn manqué